ngi sant nag borom réew mi président Diomaye Faye ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax moo premier ministre Ousmane Sonko maa ngi leen di sant ci seen taxawaay ak ministre de l'intérieur ak gouverneur bi ak préfet yi ànd nañ ko service yi nga xam ne yëpp moo tënk CRD bi lépp loo xam ne seen taxawaay la ci baxdaat yi jëf nañ ko ba ci nag poste bee sax ngeen seen ci courant bële seeni taxawaay la yokkat nañu fi tàkk-tàkk courant bi te maa ngi nekkaat ci diggante baxdaat ak ndufuk poste de santé buñ fay def te it bëgg naa ñu aménager waat tuuti cité bi yokkaat goudron yi maa ngi leen di sant ci taxawaay yu nu am ak service yëpp service yi nga xam ne lënk doon ci état bi gën na ci ràññeeku sécurité bi muy police dem ba léegi ñu ngi fi def nañ fi liggéey bu mucc ayib dëgg la naka jekk police daan na am waaye effectif bi gën na yokk te bi ñu ñëwit maa ngi koy wax sànq commandant bi cawarte gi ma gis tooguñu benn yoon def nañ seen kenn kàttan ci jàpp ci liggéey bi kon maa ngi sant gouvernement bi ci taxawaay boobu yépp ñu xam ne def nañ ko maa ngi sant it maire commune yi moo xam Mamadou Jiite la Babacar Diop la moo xam maire bi Biram Souley yaba ñëwoon ndax Biram Souley it moom la président yabal mu ñëw mu boole ko maire yi dikk waaye it ndëgën daaw toogoon naa fii di leen wax maire Ousmane jaañ ci ñàkk a taxawam fii waaye dindi na ko ba mu set juboonul waaw ndax daat moom dëgg gi rek man awma sax intérêt en doomu aadama waaye nag sa warteef moom boo ko wàccee rek ma dal sa kaw waaw li tubaab di wax ne il est devenu mon ami loolu gàtt na kon nag moom it maa ngi koy sant dellu na ci rang bi sant naa nag ñoom ñëpp communes yooyu yëpp sant it gouvernement bi ñoom ñëpp Birame Souleye Diop moo fi dëkk ci turu président ñëw na fi ñëwin bu moom dafa dafay yàgg bokk ci kër gi te bokk na ci kër gi ak njaboot gi mu àndal ci kër gi yëpp ñëw na fi ñëwinu yéene ñëwinu taxawaay ak yëpp ñoo ngi koy sant di ko gërëm sant na it mbooleem ñi nga xam ne ay xarit lañu ay wóllëre lañu comme ni ma ko waxee léegi ci président Madické Niang noonu laa ko mën a waxee it ci Ablaye Sylla Ecotra Ablaye it tabarfakàlla yabal na fi Jili Niang ak Mariam Sylla def na fi teraanga yi mu daan def ci gàmm bu ñu ko xóotalee nag mu sori ndax gën na yaatu ci réew mi yépp xarit yi wëllëre yi mbokk yi def nañu taxawaay yooyu yépp kon maa ngi sant ci lu tënku lépp loo xam ne gouvernement Sénégal la ak seeni taxawaay ci yëg gu nu yëg bis bii ak taxawaay buñ ci am maa ngi leen di sant di leen gërëm maa ngi sant it presse bi presse bi ñoom ñëpp am nañ ci taxawaay yu am solo rawatina Lamp bi bii nga xam ne moom la Aliou sëñ Aliou Thioune yor ñoom nii may wax sax mi ngi direct ci ñoom ak leeral bi nga xam ne suñu xarit suñu mbokk suñu lépp bokk ci kër gi ma njaboote ko it Dame moom la ame moom daf ci xër lool def na ci émission def ci lépp di sant it seen web bi Thiès Prestige Thiès FM Thiès 24 ñoom ñépp maa ngi leen di sant waaye nag di sant nag sant gu beru ci Best FM bi nga xam ne seen imam bi fa lay liggéey Best FM moom rajo Sëñ Xaadim Lo la moom ci kër gi la sant nag soxna maam seet mi ko yor di taalibi ci kër gi di njaboot ci kër gi du def wala mu yëkkati te du sama kàddu kon it nu ngi koy beral cant waaye nag di beral cant bu spécial boo xam ne dafa jëm ci sëriñ Abdou Samad Soyibu moom dafa ne Samadiyam bi nii na koy def direkt jël ay plateforme ubbi ko ba tele yi ak rajo yi nga xam ne yépp dafa nekk ci réew mi ku bëgg a branché sax gàmm gi nga dem ci plateforme am te doo fay dara boole kook it dafa taxaw ne it lii ñu def ci tele bi def fi lii it ne benn dërëm man bu ma ko def ci moom wala ma koy def foofa ndax fii day péncum sëriñ Touba kon lépp lu ñu fiy def di ko defal Serigne Touba loolu moom moom moo ko jël charge boppam boole woon ko it. amoon yéene ñëw waaye ak yéene yi ko sëñ bi doon doxloo ci gàmm yi mu ko doon wër kon moom it maa ngi koy sant di ko gërëm ci ay taxawaayam sant nañu ko sant bu wér sant nañu it ku mel ni service yi fi jaar yépp waaye maa ngi sant mbooleem ñi nga xam ne ay bokki taalibe noonu ak ñoom ñëpp waaye di ber nag sant boo xam ne ndax dama ne woon ne eh, dama koy jaayante rek du jar tudd ñu ci bëri ndax ñu ci bëri fekk naa buñ ko bëggee lim lii lépp mën na ne ñu ñu war a mën a tudd la waaye midi fa la fekk waaye kenn ku nekk la nga jëf yàlla xam na yonent bi xam na waaye soxna Bali Mbàkke bu sëriñ Murtada dama ko munta ñàkk bañ a sant ñaar ba ñetti fan mi ngi ci cees gi ñëw ci gàmm gi te gàmm gi rek tax koo jóg noo ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla fay ko ci barke maamam ju tedd ji ak soxna Faat Ja bu sëriñ Moodu Maxtaar Mbàkke moom mu ngi fi ñëw ànd ak rakkam yépp def ci taxawaay bu am solo defal ma it ay teraanga ak soxna Faat Bintu Puy bu sëriñ Abdou Karim Mbàkke sànq la fi jóge moom it ak ay teraangam kon nag ñi ci des ñëpp nañu xam ne àgg naa ci ñoom ci cant duma ma fàtte it sëñ Mbàkke Fall kenn jiitu ko fi bërki démb ci jataay boo xam ne jataay bu àjjanaa la moom ak sëriñ Ngunda bu sëriñ Basiru Fall alxuraan ak sëriñ Baara Fall tawa ci teraanga yi nga xam ne moom lañu baaxoo di ko def di ko indi ci kër gi maa ngi lay sant tey ñaan yàlla fan wu gudd ak wér ci barke Seexul di sant nag sama jëwriñ joo xam ne taxawaay bu ràññiku bi mu def ci liggéey bii muy Ousseynou Samb bu sëñ Xaadim Lo Gaydel benn fan ba ba ndëgëni bis bu ne muy togg reer indi te reer bu ne ak ak àddiyam ju muy àndal boole kook àndaat ak badu mi nekk ak ñoom ci waaj wi ñu téye liggéeyu kër gi yépp kon moom maa ngi koy sant sant gi ma ko sant nag moo yóbbaale mbooleem jëwriñ yi daayira yépp ci seeni taxawaay gërëm naa leen sant naa leen bu baax di sant nag ñi nga xam ne dañu jóge ci diaspora bi fu ci nekk ñoom ñu bawo fa waaye bu ma tuddee Moustapha Lo mi nga xam ne moom dafa boole Europe léegi te loolu pas-pasam moo ko ko jox ndax bi ñuy ànd dafa yàgg mooy magi njuga mi njuga mii bi ma ko Moustapha di indil muy jébbalu dañ koy leewu di ko fab njuga mi mustafaa moomu nag maa ngi koy sant bu baax a baax a baax waaye bu ma ko tuddee rek diaspora bépp déggaat dégg nañu li ma bëgg a wax fone nag bawoo nañ fa ñii jóge Angleterre nga ne leen ñii jóge Allemagne nga ne leen ñoom ñëpp a gi fi gis naa ñëpp sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp ci seeni taxawaay sant it sama xaritu bopp bële di Cheikh Dieye ni muy def bu gàmmu jotee rek mu jóge ba ma di faal indi ay teraanga bokkaat ak man guddi gi sant nañu ko gërëm ko di bëgg lool nag ak ñi nga xam ne ñëpp ci jataay yi ñu toogoon ci li ko wees santante woon nañ fa gërëmante woon nañ fa maa ngi leen di sant di leen gërëm di di leen fàttali li ma nekk muy liggéeyu jumaa ji mel na ni nag ñoo ngi waaj a jëm ci xaaj yu mujj yi muy rafet rafetal yi ndax mel na ni yi ci ëppoon solo ci tabax gi te gënoon cee doon yu yu yu am taxawaay maa ngi koy jéggi kon maa ngi nekk ci mujjantel yi te mujjantel gi jeexital bi rafet rafetal yi dinaa war naa cee def ñetti téeméeri million te insha allahu rabbi danañ ko def jébbale caabi ji ndax lii moom borom bi rekk ko moom lee yàlla rekk ko moom waaye insha allahu rabbi ñoo ngi ci liggéey boobu te daanaka bu ngeen ko xoolee sax gis ne euh, fi ne mi ngi am xar kanam beneen bu mu yor kon nag may sàkku ñaan it ngeen ñaanal ma yàlla it ma matale ko ànd ko yéen ba ñu inauguré ko ba jël caabi yi jébbale ko lii Mamoun mii di wax sànq moom la sëñ bi wax sànq sëñ taxaa ci biir waxam daf ne usine moom benn bouteille bu ñu ca liggéey rek jàppal ne la ca la ca des lépp noonu la mel wax jooju mooy li Modou Mamoun wax léegi moo mooy li wax léegi moo tax wax ji it biñ ko yëkkati may leen yéen a tey tagg leen waaw may leen yéen tey bu mu neex nag ñu ne falo yu nekk di di dàngam nàngam di léeg lii waaye comme at ba at laa ab occasion di dajeeg génn buñ ci dajee rek moom lii sax dafa yomb waaye des na tuuti xaw ma lan la lu ko wolof di tuddee xaw ma loolu saañ ba di réer dina mel noonu <laughs> waaw dina mel noonu kay ah bañ a mel noonu waaw ñuy sant ñuy sant da ngay xaabaabal xaabaabal kon nag sëñ Dame Ndiéguène Euh, nu ngi lay sant yaag Cheikh Talibouya Serigne Abdou Karim Cheikh Abdou Aziz bàyyi Serigne Baye maa ngi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne jàppale ngeen mooy ko di sant it sécurité kër gi bi nga xam ne ñoom it saa su nekk ñi ngi taxaw ci di ma jàppale ak di ma taxaw eh, nu yàlla defalee jàmm suñu morom dinu suñu borom dinu may jàmm kon nag mën nañ ne ba déwee nekk jàmm jërëjëf